ñu gëlëmal xel yi ci référendum ba doxul woon ñu wat ko loolu nag pied à pied ak ñoom ci terrain bi nit ñi nit ñi yeewu ya bu baax a baax a baax ñii dañu ànd te amuñu programme gis ngeen ko ñu tasaaroo ne tasar ci affaire liste tey nag indi nañu affaire wat ko tey dañu ko dégg voilà ci affaire vraiment ci ci affaire ngóor jigéen bi moom woo nañ ko fu mu war a leerale ak jigéen ñi. sodomiseur mu leerali digganteem ak jigéen ñi. sodomiseur loolu mooy wax ji. sodomiseur bu mu détourné le sujet faut pas détourner le sujet. soxna yi nag soxna yi laay waxal. soxna yi ak les jeunes femmes. sodomiseur na ngeen takku taxaw. xam ne président jox nañu lépp. président def nañu tedd liste njukkal la jox jigéen ñi. bu andi violence wax waxu violence wax euh, waxu yu tegewul ci dara loolu nag nañu am suñu fulla ak suñu fayda en tout cas ici à Dakar ni ko le monsieur le maire waxe woon te maire yëpp nangu ko fii kenn du fi yàq Dakar Dakaaru kenn du fi yàq ndax président dafay liggéey lu am solo gis ngeen les travaux yi nga xam ne c'est en cours te bu achevé incha allah kenn dootul xàmmee xar karu Dakar këru diine yi daf ko matal sàkk ñëpp xam nañu ko. loolu nag nga bañ a indiwaat un thème boo xam ne bii bëgg na jaxase xelu nit ñi waaye loolu il sera démasqué.